asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen chaîne di ñëw tey euh, si benn secret bu am solo boo xam ne ñu ngi koy wax xorompolle mu làmboo nag ay secret yu bari waaye tey dañ siy jël benn rek di si waxtaan ak yéen xam naa yeneen ni dañ si gën a dellu si nga xam ne si lépp lay dox waaye tey dañuy ñëw si wàllu mbëggeel si wàllu cofeel si wàllu bayre incha allah. pour ñi nga xam ne itam dañu bëgg seetlu seen ay mbir ñi nga xam ne dañoo bëgg def istixaara moo xam istixaara boo xam ne da ngay bëgg seetlu say mbiru bopp wala say yëngatu-yëngatu wala wàllu diggante lu mu mënti doon daal bu ñu si déggantee incha allah dañ la ko xoolal kon dañuy dugg directement si secret bi yow mi nga xam ne da bëgg nit ñi bëgg la si àddina boo si nekkee ak loo mënti liggéey nag soxla nga si góor ñi soxla soxla nga si jigéen ñi pour ñu bëgg la jox la bopp loolu mooy bayra ak si métier boo mën a métier loolu baax na euh, ba tey nga nekk sa jëkkër wala sa jabar nekk si kër bëgg seen diggante di neex mbëggeel am sa incha allahu rabbi nit ki jox la bopp maa ngi lay digal nga def lii maanaam dangay ngay ut euh, sa loxo maanaam sa poignée ñu main da ngay tibb sa loxo tibb xorom ñaari tibb waa ñaari ngëb si olof ñaari ngëb lañ koy wax bu ko defee nga wal ko ba mu nekk sunguf xocc si benn siwo ndox siwo boo xam ne si def ndox nga xocc si xodom polo bu ma xam ne nga ko wal comme ni nga ko gisee ne su ko defee après da koy euh, xocc si siwo bi nga ñaan si da koy tiim lépp loo bëgg rek lépp loo xalaat ñu wax ko si lii bayre boppam la rek waxuma laa nga dolli si leneen waaw waxuma la nga ñaan si mais boo si ñaanee ba pare jël tuuti xorom def si jël tuuti suukar def si léegi nag sangatu juróom-ñaari fan lay doon chaque suba boo xëyee balaa ngay def dara ginnaaw boo jàppee ba pare julli bu la neexee wala boo jàppee ba pare nga sangoo ko ndax amul benn sobe su ko defee nga jël nga tiim ko jour bu njëkk bi fan bu njëkk bi da koy tiim nga ñaan si loo bëgg yëpp nga sangu nga tëj bu subaa nga ñëw defaan noonu tëj ginnaaw ba nga defaan ba mat juróom-ñaari fan incha allahu bi su neexee yàlla su jeexee rek da nga commencé gis résultat bi yow si boppam da nga ko gisal sa bopp ndax sa bu bu bu bu jéggi doyale bu am solo. maa ngi leen digal ngeen def ko te ngeen partage ko itam pour mën a dimbale ñeneen ñi lépp loo sa ñaan rek incha allahu rabbi bi bu neexee yàlla suñu borom moom mi nga xam ne mooy maye da ko gis incha allah kon ñu ngi yem fi ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu